أمثر دين أمثر دين لتعليم علوم الدين ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من li may bëgg a wax ak yéen nag mu ngi jëm ci Touba ak jumaa ji damaa gis ne màggalu daaw bi ci laa leen xamaloon ne am naa pas-pas yéene yàq li jumaa ji ñëpp nag ngeen daal di maase seen jom ak seen yitte ak seen góor-góorlu ñëpp def ko amul keekaan na sa kàttan tegu jëfe ko def na nag màggalu daaw du jaar màggalu ren nag yàlla defal na di toog ju rëy yoo xam ne moo tax muy dëgg wax tawfeex gi moo di màggal gi yàlla dafa def bisu màggal gi ci boppam di bisu àjjuma bisu àjjuma bu dajee bu dajee bisu màggal nag taxul mu yomb na mu dugg nag kon ginnaaw sàkku lislaam yi nga xam ne moo dëppoo ak jumaa am na ba noppi nga xam ne ma ne suñ koy julli bisimilah boobu ñu fàq ko def ñu suñu gisul julli bi yokk jumaa yi loolu nag laa bëgg ñëpp yëgandoo ko xam ne mooy bés bi nga xam ne ci lañuy jëkk julli yokk jumaa yi léegi sax àggagut kocc koccal des na ji waaye nag bis bi ci boppam mooy bis bu rëy ci noonu bis bu rëy jafe xam ne bu jàllee amaana bu bu nu ne melal tollu nu ni ajjuma yi bari na waaye du jàll na ko xam naa waaye nag maa ngi leen di xamal ne dëkk bii dafa am lu fi nekk ma bëgg mu këpp ci xam dafa feene jubé ji nekk téewaru feene dëgg bi war a ne mu bëgg nag yéen ñi nga xam ne dañuy ñu ñëw yëpp siyaare ak ak siyaare rek liñ tax a ak bëgg lu baax nag kenn bañ leen a mën a a mën a tooñ ku ngeen ci gis mu ndox naa leen ndoxum barkeelu la ku mu doon ci baj ba rek a ko tënk jox la njëriñu ko dara ku ne dinaa barab bi suñu siyaare la def dara furul barabu bi ak yeneen barab yi nga ay kilifa fa ne furul kay la amut ndox mu ñu fi barkeeloo mel na la fi ñu ay dugal ma ci si ko jaay kenn ab teen la woon Sëriñ Tuubaa léegi ci njëriñu njëriñu yooyu bari bëgg mu doon lépp bëgg bëgg mu nekk caabi bi moo tax defee ko ak ba lu nit ñi bari bari ndox bi ku ci bëgg mën ci ku keneen ndoxum ndox nag feneen te jëlee ko ay muramati dafa tagg sa yooyu caaxaan yooyu yëpp laa bëgg ngeen xam ne dafa sa war a jëm te dafa suñ jëm ñi nga xam ñu ngi fi ne te nekk nekk li ñu si war a nekkee ñu leen wóor kii ne sëñ Tuubaa dana ko digale ñoom man nag lii may leen di wax dara mënta tee ma wax leen dara mënta tee ma xamal leen li leen wa kayfa axaafu ma asraktum wala taxaafuuna annakum asraktum ilayhi dara mënta tee ma xamal leen li leen bal naqasifu bil xaqi alal baatili fa yadmasuhu fa yusaa wa saa'ih dara mënta tee ma leeral leen li leen waxul jaa al xaq wa saaqa al baatil inna al baatila kaana sawaqa kon nag ñun ñun ñëpp te nekk ci leen war a ne te ma yëgal leen ni leen man mooy ci yàlla ak sëñ Tuubaa mooy li wóor jàpp ci yàlla def ko ku ku jaaxle rek koy def ku nit mën a jàpp rek ci yàlla pexe ma jeex yàlla def say mooy bu yomb nga moytu bu dee jafe nga moytu bu neexee nga moytu bu naqaree nga moytu ku ko def ci yàlla jàll waaye jàpp ci yàlla dom ba ku boromi pexe koy def bu pexe jeexee mu wax loolu du dara loolu yàlla ñu bëggoon a leeral bëgg képp ci ñëw kenn bañ laa mën a nax kenn bañ laa mën a yàqal dara te nu maase nag ci am pas-pas nag ci bis boobu ginnaaw ba bis bu nu yomb te teel bi yëpp suy tase nu fas ci yéene julli gis loolu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh